Yeah. jéego yi dem sàkku bu xam-xam bu nit ki jariñoo la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ne kenn ci yéen bu jóg dem ci jàkka ji toog fa di fa jéem a sàkku yiw xam-xam boo xam ne da koy jëfe jariñoo ko ci wàllu diineem lu jëm dafa mel ne ku jóg di jihaat ci yoonu yàlla ndax jihaat ay bunt yu bëri la loolu wax def doon jihaat an yujaahida rajul nafsahu wa hawaahu afdalu jihaat an yujaahida rajul nafsahu fi daarillahi azza wa jalla li ñuy def nii mën nga ñàkk daruratan foog ay jullit ñu toog di jàngalante seen diina du jàng waaye jàngalante seen diina waaw dafay nekk loo xamante ni mubaadala la muy ax la warante la joxante di fàttalante lenn ci seen i masaayil diina am ci loo xam ne xeet ay xeet xam-xam yu bëri la bunt bi nga xam ne moom lañ ci taamu di ko jël muy baaru waaw muy li aju ci wàllu waar ak wàllu teggin li ñu tuddee baarul aada mu nekk bunt bu am solo ci buntu xam-xam yi te ñu bëri ci nit ñi dañ koy sàggane ndax euh, yonent bi alayhi salaatu salaam jàngaleem dafa yaatu am na ci lenn lu ñu daan jàngee ci moom loo xam ne ci jaane bu ñu tuddee ahkaamul amaliya li ñu xam ci wàllu fiq la jëm li ñu tuddee fiq ahkaamul amaliya muy attey jëf ñaari xaaj la ci boo ko duggee ci usul fiq yi ñu tuddee ahkaamul taklifiya li ñu tuddee ahkaamul wadaiya mais lépp ci ahkaam lay dem euh, ci loolu la ñuy gëstu ci wàllu fiq di wax ci al muamalat wal ibadat ak yu mel noonu mais am na ci loo xamante ni génn na ko ci fiq boobu fiq boobu nga xam ne fiq muamalat bi mel ne nga ni kitaabu bi wax kitaabu nikaax yu mel noonu bañ ko ci tudd boo xoolee dëgg ci bunt bi ñuy waaj a dugg ci la gën a jëm muy aju ci wàllu teggin teggin yooyu mooy nekk ni yonent bi alayhi salatu bi mu nekkoon daan ko dafa am ay ci njàngaleem lu bëri ci doxalinam ak ci nekkinam ak ci dundu bis dundu bis bu nekkam yu mu daan def ak nu daan tegginoo ci li muy def ak ñu mu daan digal saxaaba yi loolu borom ñu ngi ko teel a yittewoo dañ ko daan jàng di ci yar nit ñi ndax ñoom bu njëkkoon dañoo yittewoo ñu tuddee adab muy wàllu teggin ak yar ba tax na bu ñu daan dem ci ne sax di jàng ci moom dañ daan kaanu ida dahabu li rajul li yaxudu minhu nadaru ila salatihi wa dallihi wa dañ daan dem bu ñu saan dem ci nit di jël dañ daan seetlu junneem seetlu ak dalam dal bi nga xam ne moo nekk ci nit bi nga xool jeexitalu xam-xam ci moom xam-xam leer la boo xam ne bu nekkee ci nit am na nooy seetloo nit ki rek xam ne kii xam-xam mi ngi ci moom ci doxalinam kii xam di jàng nekk nit koo xamante ni yitteem jàng xam-xam la mënul yem ci doxalinam ci comportement ak koo xam ne mënul xam-xam loolu dañ ko daan seetlu ci nit ñu gisee ci moom lu dal seen xel ci ne teg gi ni xam-xam mi ngi ci moom ak jeexitam na ci moom mu soog a jël xam-xam kon yittewoo waat buntu yooyu di ko jàng ndax lu muy jeexital suñu nekkin ak lu muy jubbantiwaat suñu jikkoo lu am solo beneen mbir bi ci nekkaat mooy day aar sa diine ci boppam ndax lenn ci borom leen wax ne diine nit ki ay eh, miir yu bëri ñoom ñoo ko protégé yu bëri ñoo protégé sa diine bi ci njëkk mooy aada mooy teggin bis bu la seytaane mu ne ci teggin yooyu nga xam ne mooy sa nekkin ak say doxalin tënk bi nga ciy tënk ci njàngalam yonent bi alayhi salaatu wa salaam bu seytaane mu ne nit ki ba teggin yooyu mu sàgganee ko leneen ñi des yëpp ci yeneen barrage yi nga xam ne ñooy aar diineem day fragile seytaane day yomb ci moom agsi ci ngir yàqu ko moo tax bu loolu nekkul ci nit tënku ci aadaab yooyu bu nekkul ci nit dina jafe yeneen yi ci des yitte bi mu war bi mu war a jox mu jox ko ak jeexital bi mu war a am ci am ko ci moom dina loolu moo tax kon nit ki yittewoo la dafa am solo Abdoulaye Abbas daf daan wax naan alayka bil adab na nga yittewoo li nga xam ne mooy teggi ndax dafa wax naan ziyadatun la xamal ni yokkute la ci sam xel daf lay yokk xel te itam boo demee ba ñàkk am-am la richesse la boo demee ba wét daf lay wéttali boo demee ba tumuranke muy ànd ak yow di jàppale kon teggin mooy loo xam ne foo mën a ànd ak moom a dem ak moom rek mu amal la njëriñ mu jëriñ day protéger nit day aar nit léeg-léeg ñëpp yar bu nekk ci moom ak tegginam dina ko aar xattaa sax ci diineem ci ci dellu gannaaw ci diine ak yu mel noonu léeg-léeg yenn qualité yi nekkoon ci nit ci la ko yàlla di sàmmee ba du ñàkk diineem ci yenn jafe-jafe yoo xam ne sax xëy na jaar ci mais teggin yooyu bu fi nekkulee li ci ëpp nit ki pour moo am stabilité ci diineem nit nekk nit ku équilibré wu di dund diine dindin dundin bu dal boo xam ne ku ko gis naw ko ci wekk ko ci ku ci jaxasoo moom jëflanteeg moom naw ko gis ci moom loo xam ne day sax jeexital ci yow dina jafe cërëf cërëf dina mën na fay nekk ak liy feeñ ci biti mais boo soree ci tuuti xam des na te itam léeg-léeg stabilité boobu mooy li ci wàllu am dal ak sax sa diine nekk lu leer ci sa bopp nga xam fi nga jëm ak li nga bëgg xam say principe nga tënku ci léeg-léeg bu fekkee adab yooyu nekkul ci nit ki daanaka mouvance yi lay topp ak xew-xew yeeg phénomène yeeg yu mel noonu rek moo tax léeg-léeg da gis yu bëri ci phénomène yooyu bu ñëwee ñi muy faral di gën a fëkk mooy ñi nga xam ne boo leen seetloo bu baax benn teggin bi ak adab bi nekkul ci moom ñoom tooguñu ñu mooñ leen ci ay xam-xam yar leen ci xam-xam ba xam-xam ni jeexital ci ñoom mbaa ci ñoom fenn loolu moo tax suñu njànginu xam-xam war nañ koo xoolaat tamit xam-xam bi lu ñuy taqale bu ko bricolé dafa nekk lu sensible loo xamante ne dafa am ay yoon surtout jamono yu mujj yi nga xam ne xam dafa gën a compliqué bu njëkkoon saxaaba yi ñëw toog ak yonente bi alayhi salatu wasalam di jël ci moom musaafaatan luñ soxla ci xeetu xam-xam yëpp ñu koy jàng di jàngalante ci seen biir bi alayhi salatu wasalam di jël saxaaba yi def ay ëtti xam di jàngale mais ci jamono jooju la li ñuy tuddee inqisaamu ilm commencé di fay muy tàggale ko xam-xam xam-xam commencé di nekk ay xaaj yu bokkul nga gis leen ci saxaaba yi gën a màcc ci wàllu xam-xamu Qur'an ak tafsir ak lu ci aju ñu xam leen di leen lim minal mufassirin min mufassiru saxaaba boo demee ci kutubu tafsir bu fekk lu wax ñu ko tuxal ci tafsirul ku mel ne Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Mas'ud ak ñu mel ne moom ak ku mel ne Ubay ibn Kaab Ali ibn Abi Talib am na ci lenn ci ay waxam ñu ci tuxal ak ñu mel mais ci wàllu fiq da gënoon fay Ibn Mas'ud tamit am madrasa am école ci wàllu fiq Zayd naka noonu ku mel ne Anas ñi nga xamante ay fuqaha lañu woon ñu xam nañ ci saxaaba yi am ñeneen ñoo xam ne ci wàllu xadis dañ leen gën a xam ku mel ne ay Abu Hurayra masalan loolu ci la xam-xam tàmbalee ñu xàjjale ko saxaaba yi dem ci dëkk yi sanc fa ay daara ay nit ay ndaw ñoom xasaay jàngee ci ñoom loolu fondé ay école fu ci dëkk yu mag yi nga xam mooy dëkku lislaam yu mel ne Madina Makka lu mel ne Kuufa lu mel ne Basra Bagdad ba ginnaaw bi après Bagdad mais Kuufa moo jiitu après ba Basra Bagdad soogu na mu dem ba nekk ay capital yi xam-xam yoo xam ne xam-xam yu bëri lañu fa lañ fa lañ fa def saxaaba yi bàyyi ay nit jël ko ci ñoom togg ko seen ginnaaw mu dem ba nekk ay xam-xam yu mag loolu moo jur madahib bi ci jiilu niñ tuddee ak baa taabiin mooy ñu ñi tolloo tolloon teg alimam Malik ñi nga xamante ne ñoom ñoo jàngee ci taabiina yi ci ñooñu la madahib yi juddoo nga gis xam-xam bi tàmbali nekk ay branche ñuy wax ne kii fiqu diw la lii xadiis la kii ñuy wax ne mufassir la mu nekk ay bànqaasi xam-xam xam-xam bu ci nekk am ay base yoo xam ci lañ ko tabax pour nit ki mën a dem ba ci benn xam-xam mu mën cee nekk di ci wax ak di ci dugg ci ay masail di wax mu nangoo mën ci xam-xam boobu jàng ko jaare ko ci spécialiste yi nga xam ne yàlla may na leen ko mën a former ci xam-xam boobu ba mu xam-xam-xam bi comprendre ko bu baax mais baa jël ci ay atraf li ñu wala li ñu tuddee ay furo li ñu tuddee ay furo lool sax moo demoon ba indi li ñu tuddee qawaidul fiqhiya borom xam-xam ba jamono ñu ne nañ tënk xam-xam fiqh ci ay règle nit ki mënu koo comprendre dégg ko ndax gis nañ ni ñu bëri ci fuqaha yi ci seen i jamono dañ daan xifz lu bëri loolu ku mel ne alxaraaf yi mi ngi koy wax almaliki dañ daan xifz mokkoon lu bëri ci ay masaayil mais dëgg-dëgg fiq bi day des moo tax dañ daan wax naan fiq nekkul rek ngay sar de masaayil yi di tare ay masaayil yoo xam mokkoon ko ci ay téere mais mooy nit ki am dégg-dégg am compréhension mën a jëfandikoo ay règle yoo xamante ni règle yooyu lay jëfandikoo ci bunt bu nekk mu xam lan moo lan moo ci ay moo tax ku mel ne ci euh, bidaayatu mujtahid bi muy wax ci benn bunt ci bunti xam-xam yi di baabu sarf li ñu tuddee al musaarafa muy benn façon njaay ci jaay yi nga xam ne mooy jaayante xaalis ak xaalis ñu ko tuddee weccoo wecc boobu bunt bu compliqué la boo xam ne dafa bëri ay atte te ay atteem dafa sew ndax dafay dugg ci buntu riba ci wàllu riba ci boppam léegi daf ci doon wax moom di wax ne dafa bëgg bu lay jàngal téeréem bi formé la ba nga xam ne yow da ngay am fiq am ay règles yoo xam ciy mën a demal sa ndax moom dafa bëgg former koo xam ne dafay nekk uude bu mën a defar dàll mais du nekk commerçant boo xam ne day jaay ay dàll loolu li mu ci namm mooy bëgg a wane ne ñi jàng xam-xam léeg-léeg ki muñ ci xam-xam ba règle yi mu comprender ko mu leer ci boppam mu ne kooku dafay mel ne uude bi nga xam ne boo indee sa tànk daf lay nattal sa mesure xam li tolloog yow mu daggal la dàll bu toll noonu ñawal la ko nga sol tànk bu ñëw rek mu mun àgg ci nekk faqir ba pare mu autoproclame mu jàppee boppam ak faqir ñooñu ñoo gën a naqaree waxal ci kaw suuf bu ñu nekkee ci ay njuumte ñoo gën a naqaree delloo ginnaaw ci seen i njuumte ndax dañuy jàpp ne dañoo xam yaakaar ne képp ko wax war nañoo mën a wax ak yow surtout léeg-léeg wax ju bëri gi ñuy wax ak li bëri li ñuy tare ci ay masaayil day yëpp ñenn ñi ñu yaakaar ni loolu mooy xam-xam fekk ne loolu ak dégg ak am xam-xam boo xam ne daf nit ki dafa dem ba ñor lu ñu tuddee ak nut nekk ci moom ndax xam-xam dafa am ay ay état dafa am marxala boo xam marxalatu cheikh na lañ koy tuddee marxalatu shahn mooy étape boo xam nit ki dafa tollu ci ñu mokkalal ko masaa yi mi ngi mel ne xale yi nekk ci daara yi leneen léeg gis ci xale boo xam ne ci étape boo boo demee ci Chanakota yi ci Mauritanie yi ci jamono seen daara yi fa nekkoon ñoom seenum njàng xale bi bu tollee si benn jamono bu xifdee Quran ba pare lu bëri ci ay mutun lay mokkal mokkal yooyu da koy mokkal mokkal bu yéeme mais du tax bu amagum fiq mën koo dégg xam ko xam dëgg-dëgg li mu mokkal nii lan lay wax mais bu demee ba jamono ba toog commencé jàng ñu ko koy sharxal di ko sharxal téere yi di ko jàngal muy jàng ay yeneen i xam-xam day dem ba lépp dafay àndandoo nekk benn ensemble mu dégg ko comprendre bu boobaa nag la si mën a jëf bu boobaa la koy mën a jëfandikoo ni mu ko waree mais day am étape boo xam dafay rek ci mokkal mbir mu nekk ci bopp mais dégg-dégg bi des na ñëwagul loolu moo tax li may ñaax sama bopp di ko ñaax jeunes bu bëri yu jóg léeg-léeg yàlla may leen ay xel yu neex ñu jàng mooy bu leen seytaane ndax war leen yàqal leen seen njàngum xam-xam ba seen xel yu neex yooyu duñ ko mujj jëriñoo day mujj xam-xam bi nekkaat benn moyen de destruction boo xam ne ay problème lay juraat nekk source de problème ci biir daaw ci ay masaayil yoo xam ne dañuy ñuy foree seen i masaayil ak seen i commencé di indi xam-xam warul indi xam-xam warul indi ay problème alimaamu Shaatibi dafay sax tuxal di jële ci Ibnu Arabi muy wax ne daan na dégg benn yenn borom xam-xam ñuy wax ne bépp masala boo xam ne da ngeen cee wute mu leen xam leen ni nekkul lu bokk ci xam masaayilu xam-xamu lislaam ndax lislaam ay masaayilam du dàqale xàjjatle du tàqale wute mën na ci am mais wute bi du jur xàjjale ko du jur tàqale ko loolu li muy teg kon moom xam-xam bi mucc nit ki war koo mën a indi mu ñëw di nekk problème dafa war a nekk loo xam ne bu ñëwee day dolli jàmm dolli ak dal dolli lu leer dolli xam-xam dolli boole xol yi dolli yar dolli nangam sàngam mais du ñëw di indi ay problème indi li ñu tuddee chouchouf ay problème masaay chaque fois da dem pour nga bëgg a convaincre nit ñi ci ne fi nga demoon am nga fa xam-xam jàng nga boo ñëwee da ngay bëgg a fi la seytaane bi jaaree mooy daf lay bëgg a imposé wu loo pour wu ci sa quartier ni nga mën a imposé wu muy day wax yu bees yoo xam ne ñi ngi koy waxal da leen di xaw a jaaxal bu ko defee loolu nga mën leen ci convaincre ci na yow kon jot nga am loo jàng léegi loolu la la seytaane di jaaree nga commencé topp li ñu tuddee chuzul chuzul masail ngay commencé topp li ñu tuddee xaraayib xaraayib yooyu nga xam ne dañ ko daan ku mel ne Shuba daf daan wax naan man talabal man talabal ad diin بالكلام تصدق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب الحديث كذب daf daan wax naan ku topp xam-xam li ci gën a tumuranke nga koy topp rek chaque jour mooy sa yitte moom ngay dajale bu yàggee nit ñi dinañ la weddi dinañ la askanale wax lu dul dëgg moo tax ñu daan moytundikuloo nit ñuy mel noonu al-Azrami daan la wax naan kaanu ida ijtamaau karihu an yuxrija rajulu xasaa'ina xadiisihi wala xisaana xadiisihi loolu sax du asara bi moo ko wax keneen moo ko moom la ñu waxoon ne ko li ma laa tarwi an al-asara bi wa ahadithu wa ihsan qala min husniha qad faratu dañ bu ñu musaan daje ci jotaay nga yor ay xadis yoo xam ne xadis yu la yoo xam ne borom xam-xam yi dañ daan bañ nit ki di toog ci jotaay yu mel noonu dafa génne saaru xadis yu dañ ko daan moytandiku al imam Malik dafa am benn xadis bu mu daan toxal di ko nettali nit ñi di ñëw rek bu toogee ba mu yàgg benn mbooloo ñëw ne ko imam xadis sàngam lañ bëgg a nettali ñoom mu nettali dem ko bu toogaat ñu tuuti ñeneen ñëw laajaat ko même xadis loolu xaw koo jaaxal ma lu tax nit ñi di ñëw rek di ma laaj xadis bi ñu ne ko parce que xadis bi gisuñu keneen ku koy solo ci dëkk bi ku dul yow mu ne su ma xamoon ne dama caa wéet kon du ma ko nettali su ma xamoon ne dama caa wéet ci xadis boobu du ma ko nettali ndax wéet bi mu ci daa juum daa ndax xadis nga wéet ca yombul xam-xam yi tamit wax ci loo xam ne da nga caa wéet yombul ndax li ngay gëstu ñu la jiitu ci xam-xam jëg foofu gis nañ ko gëstu nañ ko jàng nañ téere yooyu nga xam ne fa ngay xool yow kon waroo caa mën gis di indi loo xamante ni lu nit ñi xamul loolu mënul nekk léeg-léeg compréhension bu yàqu mooy faral di tudd yooyu moo tax léeg-léeg nit ki dafa tuumaal boppam moo tax sax même ci xadis dafa am lu ñu naan tuddee ak tuhma bil kadib muy tuumaal nit ki wax lu dul dëgg tuumaal nit ki wax lu dul dëgg ci xadis ñaari mbir lañ ko daan defee nit koo xam ne comme ni ko imaam alimaam Maalik waxee woon ne ñeenti nit bul solo di xadis di ko jëlee si ñoom ginnaaw ñeenti ñooñu bu la neexee nga solo jëlee ci keneen koo xamante ni bi xel mi àndul ak sagoom maanaam da nekkul borom xel mu mat wayul kooku bul jëlee ci moom xadis koo xamante ni bi day ne ci ay bidaa woote di jëmale ci bidaa yi bul jëlee ci moom xadis koo xamante ni jaamukatu yàlla la bu baax buñ naan kii ab jaamukatu yàlla la waaye nag amul xam-xamul xadis yitte woo ko noonu ko war a yitte woo mu ne baax na bépp baax waaye bu jëlee moom xadi ndax du mbiram day dëgg nit ñi li ñuy nettali rek mu koy nettali fekk ne lañ koy lañ koy wax wérul ñeenteel bi mu ne koo xam ne buy waxtaan ak nit ñi di wax ak nit ñi li muy wax da ciy wax du dul dëgg mu ne kooku même bu fekkee mu mosoo gis fu mu waxalee yonent bi alayhi salaatu salaam du dul dëgg waaye comme ci ay waxam ma ngi cay wax du dul dëgg bu jëlee xaditam loolu ci li ñuy tuumaalee nit ki wax du dul dëgg ci xadis bokk na ci mooy di wax ci say wax du dul dëgg beneen mbir bi ci des mooy wax xadis boo xam ni dafa juyotloo dafa safaanoo ak règle l'islam yi l'islam dafa am ay règle générale yoo xam ni bu nit mu saana tuxal xadis xadis bi juyoloo ak règle générale yooyu dañ naan ko accepter ne da ngaa juum boo ko defee dañ lay tuumaal wax lu dul dëgg nangul ne da ngaa juum comme na ko Soxba waxee nangul ne da ngaa juum wa illa boo nanguwul ne da ngaa juum dañ lay tuumaal wax lu dul dëgg loolu tamit day feeñ ci jamono yu tuuti ci interprétation yi ngay jox texte yi mënoo jël ay benn wala ñaari xadis bu ko jox déggin boo xam ne dañ nga ciy màbb ay règle générale loolu mënul nekk loolu moo taxoon borom xam ne daan jittewoo ñu tuddee maqasidu sharia comme alimaamu Shaafi'i ni mu ko defee ci almuwafaqat pour moytandiku loola ngay am façon tegtalu yin boo xam ne ci texte yi baaxul comme ni ko xawaari ji daan defee mooy li ngay déggee ci kaw texte bi rek mooy li feeñ ci kaw mais amoo capacité bu la may ci xam-xam bu tax nga lëkkale ko ak yeneen règle yoo ko war a chaque fois ci ay problème ngay dugg te tegtaliwu bu oyof boobu lu bëri léegi ci ndaw ñi dañ cee tàggu te li leen ci yóbbu mooy yàkkamti ci xam-xam ñàkk a toog muñ xaar ba àgg ci niveau bu la may nga dajeel li ñu tuddee adawaatul ilm adawaatul istinbaat adawaatul ijtihaad mooy clé ak outil ak bagage yi lay may nga mën a am paix ci sharia li ñu tuddee ak sharia paix bu yaatu boo xam dina la may loo cay tegtaloo ci ay tegsam nga mën koo xam lan nga ko war ci ay règle générale pour mu bañ a am taawu muy bañ a am féewaloo amaguloo capacité boobu texte yi ngay gis rek lim la jox ci kaw ci ay ay ay ay ay dalaalaat yu tuddee nga waatul moom suuf nga jël loolu daal di koy tegtaloo buñ doon wàcc asamaan si nga ne nii la aaya la xadis la mais sa déggin ak sa istidlaal am na xata bu ci am xalal bu ci am boo xam ne léeg leen ci loolu wàcc asamaan si moo koy gën a yomb da ngay wax fii ba déwoon léegi loolu ay ay ay kuréel yu jàlloon juum nañ ci bunt yooyu juumte yu rëy rëy ku ci nekk ci ñoom boo musaana saxal sa mbir gëm ko loo xam ni dafa wuute ak pas-pasu ahlu sunna dafa wute ak njàngaleem yonent bi da nga daan yaakaar ne ci dëgg nga nekk alxuraanu yàlla di yow la àndal sunna yonent bi alayhi salaatu wasallam yow la àndal boo ko defee ngay tàmbali di jàng ay aaya di jàng ay xadis am na si ñoom ñoo xamante ni seen yenn masaayil yi kenn su ñun tey bu amul bagage bi mu war a am ci xam dem seen i téere liir ko liir seen i tegtal yi ñu ciy tegtaloo soo moytuwul yàq xelam ndax wax ji ni muy rafetee ak aay yi ni muy leeree ci li ngay niñ leen koy waxee nga jaakaar na ñii kat li ñuy wax ni daa mel ne dëgg la xëy na suñu ñàkk a gëstu moo tax mënuñu xam yow mais bul yaakaar ne ñu mel ne mu'tazila yi par exemple ay waxu falaa falaa la ñuy wax yoo xam ne da ngay ñëw rek dammate ko dem yombul def ñi amoon capacité ci borom xam-xam yi mën a dàggasanteeg ñoom ñu néew lañ ñu ñuy compter ak ay ndax tellement li ñu daan wax day pointu dafay sew sewaay boo xam ne pour nga comprendre ko sax problème la kon léeg-léeg loolu bu mu la wor boo koy dégg ci ay nit xëy na bu sam gëstu xóotoon ci kuréel yi fi jàlloon nga gëstu seen i dàggasanteeg ahlu sunna ak lañ daan tegtaloo du la jaaxal tey ngay déggat ay nit di ñëw di jëlaat ay texte di ci am déggin yu yàq yoo xam ne bu borom xam-xam yi di wax ñoom duñ leen wuyu duñ leen wuyu ndax ñoraw borom xam yi jamono ëpp leen xam-xam fuuf muy sahabatu rasulillah jamonoonte nañu ak ay nit yoo xam ni dañoo féewaloog saxaaba yi déggin ci alxuraanu yàlla ji ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam te saxaaba yi ñoo leen gën a dégg ñaar yooyu mais nanguwuñu wuyu saxaaba yi nanguwuñu leen dégg liñ tuddee alqadar alqawlu bil qadar jamono yi muy feeñ basra boobu lenn ci saxaaba yi nga xam ne ñoo mujjee faatu ñu ngi dund jamonoonte nañ ak wax yi wax ci ñu daan wax ci alqadar di dàq ndogale yàlla yi subhanahu ñu ci des tamit mooy xawaar yi nga ñoo génn ci jafe-jafe yi amoon diggante Ali ak Muawiya rawatina ci jamono Siffin laata ñuy def taxkiimul xakamay ku leen di génnoon di wax Ali naan ko inal xukmu illa lillah kenn warul àtte ku dul yàlla inal xukmu illa lillah dëgg la yàlla moo ko wax mais ban déggin lañ dem nañ ba Ali taxaw ci minbar bi di xutba ay nit jug ci a di naan ko inal xukmu illa lillah ñëpp di yuuxu mel na comme genre Souleymane Ali ibn Abi Talib xool leen reetaan ne kalimatu xaqin urida biha baatil kaddu gi ñuy wax kaddu dëgg la waaye ñoom sens biñ ci namm ak liñ ci namm liñ ci bëgg a déggee neen la liñ ci déggee ak liñ ci namm neen la ndax ñun xukmu illaa lillaa déggin bu yàqu lañ ci amal te loolu mooy xabaar yi bi leen bi leen Ali di wax Ibn Abbas dem ci ñoom wax leen ku ne wax leen est-ce que dégg déggu nañ déggu nañ leen àndoon nag yëg seen bopp ak tàngoor boo xamante foo ko takk weesu noonu mais yooyu bu mu nax suñu jeunes loolu du xam-xam loolu mooy xam-xam naka jëkk yu mel noonu dafay am chaque fois rawatina suñ jamono yu mujj yi nga xam ne xam-xam amatul borom xam yi yi di jàng ba am benn niveau bi ñu mën a wax nga dégg leen dégg su ñoom li ñuy wax xam ne ki li muy wax xam-xam bu mu xam la lu muy xamantu di ko taqale ñëw di wax bëri suñ jamono ay bricoleurs yoo xam day ñëw toog ndax nit bu xelam neexee rek mu mokkal waaye mokkal mokkal bu bëri ak dégg li nga mokkal xam ko lu ñaar yooyu am na différence boo ko defee mu mën a am euh, toog di jàngal nit ñi loolu bëreetul léegi toog jàngale toog formé ñu jàng njàng mu sori bëreetul beneen mbir bi ci nekkaat mooy nit ñi léegi ni ñu war a muñee ci xam-xam defatuñ ko léegi lu bëri ci jeunes yi dañuy bëgg dañ daan wax naan al ilmu ida ataytahu kullaka ataaka baadahu xam-xam mooy loo xam ne boo ko joxee sa lépp mu jox la lennam boo ko joxee sa lépp mu jox la lennam kay fa nag boo ko joxee sa lenn rek mën nga bëri ko de xam-xam ci durant ay deux mois deux ans un mois nga bëgg fi am ci xam-xam lu tax ngay toog di dàgg sant ci ay nekk te léeg-léeg njàng mi sax du doon njàng mu tax ñuy mën nga fay xaw a fer nit yi ala kulli xaal fu mel ne université islamique bu fa nit mësaan ñëw boo xamante ni amagul niveau pour jàng xam-xam ci deux ans lañ koy formé pour mu mën a dégg arab mën a lire mën a jàng arab ci deux ans lañ koy formé pour loolu moom te bu dee njàngum daara njàngum euh, toog ci ay jotaay di jàng moo gën a yeex fuuf moo gën a yàgg fuuf njàngum académique njàng boo xam si académique kon bu fekkee nit ki da caa bëgg a jëlee daara jàng ko jàng ci funoonu xam-xam yi benn bu nekk mu jàng ci téere yi ñu ca war a jàng ba jeexal ko njàng moo xam njàng bu dëgër la njàng bu baax la loolu foog nit ki nangu ci moom beneen bi ci des mooy mu bañ a sàggane jaanib bi nga xam ne mooy jaanibul adab mooy nangoo yaru ñu yar ko ci xam-xam mu defar ci ay jikkoom defar ci nekkinam ba xam-xam bi am jeexital ci moom mais bañ a yaru xam-xam bu bëri boo xam ne boo ko xoolee ci ay comportement ak ay doxalinam mokki xamul dara ñoo yem ci ay doxalinam ak tasarrufatam ki xam ak ki xamul yem qul hal yastawi na ya'lamuna walladina la ya'lamun ki xam ak ki xamul mënuñu yem yemuñu fa yàlla ci ci ci ci tolluwaay ci dayoo waaye yemuñu tamit ci àdduna ci seen doxalin ak ci seen nekk kon loolu dañ ci bàyyi xel bu baax ba tax na ko ala kulli xaal nañ def suñu kéemtalaay kàttan jàppalante pour jotaay yi ñu am fii ñu góorgóorlu dañ fi mën a baaxal baaxante suñu biir ci xam-xam ci njàng ci masaay yi nga xam ne moo fi romb doon ay masaay yoo xam ne masaay yu xóot la ñu mën di taxaw di ci dugg ci yenn yi kon daanaka ñun ñëpp mën nañ cee jëriñu bi idnillahi taala téere bi ci càppalante mooy téere bi mbokk yi proposé woon di al adabul mufrad di limaamul Buxaari téere boo xamante ni al imaamul Buxaari moo ko taalif Muhammad ibn Ismail al Buxaari ban di woon kilifa bu mag di kàngam bu te xëy na bu ñàkk dañ taxaw wax leneen ci dundam insha allahu taala si jataay bu njëkk bi ndax kooku foog ñu xam ko xam xam ñoom tuuti dina tax ñu delloo si waat suñu xel xam ne ñun tolluñu fenn ñooñu ay fóore lañu woon ci xam-xam niveau bi ñu amoon ci xam-xam foo ko tax way suno seen dund lépp ci xam-xam nañ dem bay wute ci ndax amoon na soxna dundam lépp ci njàng xam-xam ginnaaw bi toog di ko jàngale la ko def taru la sax sañ kër sañ kër te koo def ñun suñu jamono nag sa yitte àdduna lépp moom sax nga gën a jox yitte ko xam-xam bi ba pare bëgg am ci xam-xam lu bëri kilifa la koo xamante ni ñàkk na am lenn lu ñu wax ci dundam téere bi mu taalif da ko taalif ci li ko dee al comme ni ñu ko waxee mu nekk fànn boo xam ne moom teel nañ ko yittewoo ndax moom ci septième siècle bi la dund am na yeneen téere yu ci taalif tamit ci xadis ñenn ñi dañuy indi xadis bi ak càllale bi moom dafa indi rek li nga xam ne mooy mutuuni ndax li ko ci gën a yitteel mooy maani yi mooy sens bi xadis yi mu fi indi tamit tënkuwul ci ne xadis bu mu fi indi day nekk xadis am na yu wér am na yu wérul ndax buntu la boo xamante ni ñoom dañ caa woyofaloon tuuti ndax bokk la buntu ahkaam nga xam ne mooy atte yi loolu tamit du ñàkk nañ ci del si waat mais dañ bëggoon ñëw tey rek pour wane ne dinañ tàmbali insha allahu taala xëy na Cheikh Ali Gueye moom moo fi ñëw ci yenn mardi di jàppalante ak yéen ci beneen das moom bu ñëwee mardi bi beneen mardi insha allahu taala ñu ñëw léegi tàmbali téere bi nga xam ne al adabul mufrad bu ko defee di ci ay ay ay duruus incha allah taala diggante timis ak gee ci euh, chaque quinzaine maanaam moom bu ñëwee benn mardi ñu ne ñëw benn mardi incha allah kon lii tàmbali la woon ak jotaay boo xamante ni pour wane dañuy commencé incha allah doon defoon nañu tardé ñu ngi jéggalu ci loolu di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu barkeel jotaay yi yàlla def ko mu nekk lu sax itam yàlla saxal ko ndax léeg-léeg loolu jafe la mën a na ko yàlla saxal subhanahu wa taala te def ci njëriñ wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain